Euh, ban situation boo xamante ne jigéen ñi bépp jigéen nag bu ti doon situation boobu lañ nekk boo xamante ne yow bëgg nga d'ici si a deux ans trois ans mu changé euh, loo xamante ni yow sa mën na wax ni ça vous a touché euh, lu la métti la lan la soo fekkoon da ngay am loo xamante ni bëgg nga daal radicalement mu mu changé loo xam jigéen ñi dañ koy dund si at yi ñu weesu. d'accord ñu ngi entravé ji liggéeyu jigéen ñi bu baax a baax a baax Sénégal bu politiciens yi donc ñoo ko yor yàlla secteur tertiaire bi nga xam ne la majeure partie femmes yi ci la ñu suturloo nañ ñu bàyyi xel bu baax a baax beneen bi mooy les financements accès financement femmes yi. Mhm. difficile na compliqué na. Mhm. des fois nga dem ci banque taux d'intérêt bi doy waar lool. ba doo ko ñemee waaw da nga koy jël da nga koy fay. les financement bi nga xam ne état moom moo koy def nañu bàyyi dee financement pré campagne yu ñuy jox jigéen ñi nit boo ko bëggee dimbali warul am moment warul am période à tout instant da nga ko war a jox et la forme de financement ak ni nga koy financé parce que quand finance finances une femme yaa ngi jàkkaarloo benn jigéen tey nga may financé yaa ngi jàkkaarloo ak madame Aïdara mais derrière sa madame Aïdara y a mes enfants qui sont derrière mooy man ah, Latir Diagne derrière cette madame y les enfants qui son derrière moi. Mm-hmm. il y a nu ñu waxee la dépense quotidienne qui est derrière moi ak yeneen charges yi nga xam ni ñun jigéen ñi dañ ko sàlloo di ko jàppale suñu borom kër yi ci kër gi. Mm-hmm. léegi nag yow bu fekkee da ngay fayeeku jàkkaarloog jigéen ki da jàpp ni moom dong moo la war a fay alors que xaalis bi duggul woon ci moom dong xëy na dugg na ci commerce bi xëy na dugg na ci activité bi dugg na ci projet bi mais dugg na tamit ci kër ga donc mode de financement yi ñuy financer jigéen ñi nañ ko bàyyiwaat xel. ak période bi ñuy financé jigéen ji li may ñaan yàlla di si an. période campagne moom financement yi day bari. li may ñaan yàlla déjà. ba dañ leen utiliser di leen dugal ci ay cadres dañ jox ay war nga ko déjà maa ngi ñëw déjà nga financé jigéen ci période campagne bàyyi woo ko mu concentré wu ci activité de commerce par exemple pour mu mën la fay. nga ñëw ko am jàpp ko yóbbu ko ci sa campagne ba talul jaay campagne bi jeex nga ni pour mu fay la. c'est impossible loo tax chaque jour état di am ay fonds perdus parce que financement yi fi ñu koy jaarale la bu politique di agsi nga financer femme bi femme bi ne lii soit fonds politique la ànd ak yow campagne ba mu neex des fois sax le pire des cas mooy du la fotel léegi wala illaa même bu la koy fay après da koy fay dans des situations pénibles parce que joxoo ko temps pour mu concentrer ci activité pour mën la fay beneen bi mooy mobilisation la place de la femme au sein des partis politiques mm-hmm. ñun dong nekkuñu fi pour di yor ay mobilisation ay organisation xumbal xumbal xotti otes def et cetera ñun jigéen ñi la c'est un combat qu'on doit mener pour wane suñu parti biir parti politique am nañ ci place bu gën a mhm. bu gën a yànj bu gën a rafet ay mobilisation ay ay ay ay oto ay njage njaay mhm. donc pour loolu sensibilisation bu ñu war a def jigéen ñi bu ñu gëm seen bopp mhm. te dafa bokk ci li ñuy wax autonomie jigéen boo autonomiser mu xam boppam xam valeur am peese poids am boo koy woo ci ay mobilisation du jaar ci ay carte njëge njaay mun na ñëw ci sa activité parce que yow candidat bi da nga ko intéressé mais du jar muy def ay mobilisation parce que nit ki boo ko joxee ni koy waxee ligne de bu doy gëmloo ko boppam. rendre ko ses valeurs humaines foo ko woo muy la. te du jar ngay woote di fay ay nit di ko jox ay deux di ko xiifal di ko sonnal ñu doxuñu ci loolu la fédération jigéen jàmbaar da ngay bind lekk nga demandé ko jox ko invitation pour mu ñëw répondre on met pas de critères si on est disponible ñu ñëw wuy si la chaleureusement soo amee looy def ci kees bi comme participation comme soutien parce que ay jigéen lañ te dañuy liggéey mm-hmm. suñu kees moo ñu permettre ñu mën a def seeni activité on le reçoit mais on donne pas de condition boo ma joxee temps ñun ñu ñëw politique temps parce que on n'est pas des politiciens xëy na Latir mi mu nga xam ne moom moo nekk ci coordinatrice jigéen jàmbaar day politique di jàppale Amadou Ba. Mm-hmm. mais ça ne veut pas dire que le réseau jigéen jàmbaar. ni ñuy jàppale Amadou Ba justement foofu la ñuy dugg si sax nag mm-hmm. seen mouvement vu que c'est un mouvement politique mm-hmm. euh, nga affirmer euh, ne que da ngeen di jàppale Amadou Ba lan ngeen mën a apporter de plus à Amadou Ba vu que y a déjà des mouvements qui sont ñun ay jeunes lañ. nekk yàgg yëngu ci développement communautaire def social. Mhm. am des relation avec les gens dans la commune de Malika bi nga xam ne falaa laa dëkk et j'en suis fier mhm. muy une commune boo xamante ni jigéen ña fa nekk dañoo am jom faalu ñuy daray góor dañuy xëy fajar ñii dem ñii nekk marché au poisson <laughs> ñii nekk marché Thiaroye di liggéey maanaam quand on dit xaaruñu faalewuñu daray góor maanaam xaaruñu leen da ngeen di jàpp ñu jàpp parce que tey jii jamono ji ñu toll non nekkul mu jigéen mën a dem daa sans góor ah, jamono ji ñu toll ak góor lu mu baax baax ak góor lu mu mën mën ak lu mu yor yor ak loo yor yor mm-hmm. nangu leen ni jamono moo laaj góor di def jigéen di def te muy dëgg c'est léegi nag jigéenu Malika laay wax jàmbaar gi ñu am jàmbaar ak fulla gi ñu am ñu àndandoo di liggéey mm-hmm. gëm naa ni la ma la ñu jot a def Malika. Mm-hmm. ñun mouvement deux 2GD la keneen jot a def Touba la keneen jot a def Oussouye la keneen jot a def euh, Thiès la keneen jot a def dans les autres communes de de la région de Dakar mm-hmm. jàpp naa ni ñun bu ñu accompagner le président Amadou Ba c'est un grand plus parce que xaaruñu tey ba politique jot ñu wàcc ci terrain bi dañ cee ne man malgré mon jeune âge depuis 2016 ba léegi maa ngi ci terrain bi entre les associations et les groupements de femmes. tey je ne suis plus à présenter à Malika dans tous les coins foo taxaw ne ay Aïdara nit ñi ñëw et j'en suis fier parce que defalu ma ko jàmbur sama commune laa ko defal bala maa dem ci commune yu keneen tey ki nga xam ne moo rek Touba xaarul tey ba Amadou Ba taxaw pour mu jàppale jigéen ñi dafa mettre en place benn projet muy Malick Sall un te gars très engagé jël benn poulailler bu mag boo xamante ni li muy produire ci ay ginaar jox ko ay jigéen ut ay financement ci turam jox leen ko di leen ko jàppale kon kooku tey bu woowee jigéen yooyu pour ñu jàppale Amadou Ba dafay mhm. yomb. rawatina Amadou Ba nag ba mu nekkee un candidat bu neex a jàppale.